service départemental du commerce dafa yëgoon ay information comme quoi que ne am na ay boulanger yoo xam ne dañoo dañoo fas yéene yokk prix mburu bi te ku ne xam na ne prix mburu moom du ñoom ñoo koy yokk du ñoom ñoo koy wàññi c'est l'état du Sénégal moo koy yokk biñ ko yëgee tey dañ xëy yabal suñuy ndaw ñu dem ci terrain bi effectivement gis nañu ne am na ci ñoom ñoo xam ne yokk nañu bu ñu yokkee nag ñu teg leen li nga xam ne moom la yoon wax euh, li ci njëkk mooy ñu saisir pain yi ay deux cent 250 baquettes la war a toll. fekk ñëw nañu yokk am na wala wàññi am na képp ku ko ci def mm, da nga jàmmarlu ak yoon. te yoon ñun la fi teg pour ñu saytu lool donc duñ ci masla mooy loi boobu ñuy wax 94 63 parce que dañoo jaay prix bi dañ ko fixé à cent 150 francs te ba nëgën si ñun jotaguñ benn kayit bu ñuy wax nañu ñu yokk leen yokk am na donc ñu xëy dégg ne yokk nañ ko teg nañ ci juróomi dërëm muy 175.

loolu wax dëgg yàlla joytu seeni i problème tey seen i problème autorités jël nañ ko ñu ngi koy lijjanti nañ ko war a lijjante waaye nag seen cër nekkut ñu xëy rek yokk prix ñoom ndox loolu yoon may ko kenn kon nag li ma leen wax mooy seen intérêt la nañ ko ba suñ ko ba danañ jàmmaarloo ak yoon